te bu sax dañu koy foot ya salam gangi seigne babakar Babacar jaxatee tam am lum nu waxoon ndoortel juma ji lu yemo yemu way yaangi ngi li am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bop tak ngir liggéeyal Bamba war gaangi juma ji nak legi bi yegge digel li fi des gi rek gu mag gaangi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 bamba nak nag fab xasaayid yëpp daal dina xëñ addis yi ak téere bi yombal la mir mangi ngi jëlal xasaayid yow lo man dros dangaam yoolub ku wàcce limub kamil lu wér laa ngi koo al ne nag alxuraanam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ña cheikh sidi al mukhtar jëwriñi cheikhul khadim ci kaw suuf ñoo ngi lay nuyu ci turu Serigne Modou Mbacke ci mi ñu andal ak mbollem journaliste yi àndoon ci liggey bu sel bi nga xamne jogon nañ ci sa ndigal ci sa kàddu gi nga yëkkati woon ne waxtasimoo bi abdillahi jamian wala tafarraqu innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum rek ay sa yéene mooy sa bëgg ñu lay séral na ànd nañu Sénégal journaliste yi ne ci réew mi dem ci fanweeri dëkk ak ben ci réewum Sénégal tàmbalee ko fi ci Touba alxames ji wessu dem nañ ba ci dugu suñ borom dogal na fu nu jitu fu nu dem fek nañ sa jitu ñu fa sa jitu ñu fa sa jëf ñu fa sa xol bu rafet ñu fa yàlla firndel ci lu yaatu farak yow ci sa kàddu dem nañ ñi bi fek fa mu xàddamu Cheikh Sidi hazi malik mu tuddu alaaji Jabel Dramé mu wax ne ba nga wootee baat boobu day la façon ci xolam ne dom jum jëk amati yow la koy tudde ndax bako ko waxe batay yow mii rek la nga nga sol saw dàll ngir dox loola ba doomam jooje yow la ko tuddee boole ci kaamilu alxuraan bii say yu socc woowu mu daggee ko ci ab toolam na nañ la ko yët ba ñu àggee Koungheul fekk nañ fa mu mu Cheikh Sidi Hadji Malick bu tudd Alhaji Moustapha Diop moom it nee na ba mu déggoo sabaat boobee la fa soon yéene doom jum amati Cheikhul Khadim la koy tuddee ba tuddee na fa Serigne Touba doom ba mu ko defee nag seriñ Modou Mbacke dafa wax ne Serigne Sidi Mokhtar bu fi ñëwoon da koy xottil mbootu kon ñun murid yi ànd bala ñu fee jóg nañ jox doom ji mbootu ba dajalee nañ ko fa lu toll ci juróom benn fukki junni ci saw tur jox ko ko noonu lañ ko toppe jaar Tamba ba ñu demee ka fa diine je yor kàddu tariixa ya fa nekk yépp moo ñu teeru wax ne day yàlla dogal na mu fas xolam ci yow akuk bëggam ba ñu demee Siin Matar nag fa lañ la gën a fekk ndax fekk nañ fa koo xam ne dafa wax ne ba muy fasanteeg yow wëllëre booba toogagoo ci jataay bii waye bam la gisee la xam gis na nitu yalla ndax da ngay ne daje ci ak ñaan nga fekk ñu jang alquran da nga ne cëpp rew mepp di rëg-rëgi waye bi nga ne cëpp da nga ne dal leen dal leen ba ñepp na tek ngeen ñaan lañuy def ci alquran ji mo ñu daq ñaan kon nañ deglu bañu xat mu bi nee bobé la la jox loxo na fas ma ak yow wëllëre nga ne ko kon kat dama wara xam fo bok nga ne ko mu la maa ngi ci señ Matar Penda nga ne ko mu mag ma nga waaw nga ne nga taf ko ci sab dënn na ko na nga fexe ba ñëw tuubaa nee na loolee di ngànt ci moom ba yàlla dogal ngeen ànd daje màkka mu xool la xàmmi la nga ne ko yow yaay sëtu Matar Penda ba ngeen fasante wëllëre foo feecee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nee na wóor na ko ne yow sa xar kanam bii yàllay kese rek a ci nekk sa xol bii liggéeyal Serigne Touba rek a ci ne ba tax na lii nga yéene di ko doxlu fas nañ yéene jullit yëpp ànd kook yow ba ni ko bëggee nga amee ko ni loolu lañ la doxaloon noo ngi ñaan yàlla guddal sa fan wi lool te dolli sa wér gi te loo weesu sëñ Touba gërëm ko te nu ànd kook yow. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu sëñ Modou Mbacke si sëriñ baa ngi lay nuyu yaag bokki taalibe yi nga àndaloon doon dugg ci biir Sénégal ginnaaw bu leen sëñ Bass Abdou Khadir tànne moom mi nga xam ne moom la sëñ jox liggéey bi mu def ko ci ndigalam nga ànd ceeg bokk yi ku mel sëñ Xaali Jaxate sëñ Fallou Galass Syll mi ak ñi ci ànd ñëpp sëñ Fallou si ak mboolem journaliste yi nga xam ni ñii ay rajo lañu yor ñii ay ay ay ay télé ñii ay dañuy bind mi leen ci sant bu baax ak ñi nga xam ñëpp dañuy yëngatu ci wàllu wàllu tas xibaar mi ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di rafet lu baax jëf ji nga xam ni jëf ngeen ko te lii nga xam ni moom la fi sëriñ Fallou Galass Syll wax léegi mu tàmbalee ñiibi dem ba Koungheul dem ba Tamba te ñooñu ñëpp bokk ci yeneen kër fab seeni njaboot di ko tudde Cheikhul Khadim ak sëriñ bi loola xam na ni woote bi mu woote woon rek moo ko waral waaye la ko waral it bokk na ci seen pas-pas ak seen taxawaay ak yaatal koo xam ni yéen a ko yaatal liggéey bi nga xam ni moom la sëñ bi santaane te lépp di jokk ak bokk te dara dara génnu ci lislaam ngeen bàyyi seen i kër bàyyi seen i njaboot di yendu di fanaan ci àll bi ba amee ci eh, natiija bu rafet boobu sëñ bi ne bi mi ci sante bu baax di len gëreum di ñaan ngeen dajje ak tawfiix sëriñ bi di sante bu baax nak ñi nga xamne ay journaliste lañ te àndoon ak yéen te kenn fayeeku ci dañoo ànd ak ngir liggéey sëriñ bi mi ngi leen di bu baax di len gëreum di ñaan ak wér taftabar Cheikhul Khadim kon ñu maase nangu ñaan amin amin amin amiin foog mu jóg ba pare nga doog a nit ñëpp maase di bëgg bisam bisaa bu dikkee mooy raw lu wér laa ngi